àddina bi yëpp mhm. ndax xam nga ñun suñu yëngu-yëngu yenn saa yi ñu def nag su dul noonu te duñ ko tey kon nag euh, maa ngi baalu àq ñëpp mhm. di baal àq ñëpp mhm. ah euh, di ñaan rek euh, yàlla na jàmm sax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu nag boroom kër gi di ko baalu àq di nuyu équipe bi yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey TFM ah liggéey bi rafet na vraiment kontaan naa di nuyu nag di santaat kilifa diine yi kilifa aada yi que lu dul jàmm jàmm jàmm ko gën defe naa jàmm moo tax euh, guddi yi am jàmm moo tax euh, ñu euh, woolu la ci tabaski bi wax ko itam ji bi mu ñëw maa ngi déglu sànq ci répétition yi nga indi jaajiri keroog bi nga xamee ni Youssou Ndour mu ngi dem ak Super Étoile Cirque d'hiver ci scène yu mag yi ku ci dem di nga ànd ak moom muy ascension boo xamee ni am nga ko depuis très longtemps tey ñun ñëpp kontaan ci jàkkaarloo bi ñu nar a ak yow yow itam ñu ngi lay nuyu bu baax yi Diallo Diéry ngi lay di nuyoo soppa yi fans yi di nuyoo kilifa diine kilifa aada yi mhm. Diallo Diédé di nuyu nag sama sista mhm. Viviane di la nuyu lool macha allah liggéey bi rafet na jekk na lool mhm. di ñaan yàlla rek bonne continuation comme d'habitude Diallo Diédé di sant yàlla Sénégalais yi wala nañuy baal àq mhm. man de baal naa leen man mhm. ñëpp baal àq mhm. di nuyoo nag macha allah télévision Futurs Médias di nuyoo nag suñu doyen mooy monsieur Youssou Madjiguène Ndour maintenant man man ba léegi nag monsieur le ministre laa ko woowee waaw léegi macha allah <laughs> di ne nag soxna mu baax bi Aïda Coulibaly sa géer sama géer moom lay ubbee sax jaajëli lay bo sa Coulibaly Massa Massa <laughs> bokkaar ni sama mën a parce sa Diallo mm. di nuyoo askan bu ma bokk koy di nuyu bambara di nuyoo nag ñi xam ne ndeysaan dañuy bëgg Djiby Dramé te bëgguñu sax soo nekk bambara mhm. su ma su ma limee juum mhm. soppe yi xam naa leen xam nga men mhm. kon nag nuyu naa leen ñoom ñëpp ñu ngi lay fay mm. nga ànd nag ak uh, soxna si mm. uh, maman chérie uh, moom it ñu bëgg ko lool mm. sànq maa ngi tooñ maa équipe yi ci ginnaaw bi mu wooyee ba xaw yëngal ma ne ko eh heure bi bu la fekkoon bama ah maman su ma ko bëgg Ika Kene kontaan nañu ci sa teewaay bi tey mais tey sonn nga ah parce que diggante euh, lakk yàpp bi jox xale yi jox ji bi pare waat encore waat ci télé bi tabaski yombul pour nekk femme artiste ah, ah ba pare di sëy metti na mais liggéey moo ko laajte mhm. balaa loolu maa ngi leen di nuyu ñu lay fay Viviane maa ngi nuyu mhm. Pape mhm. kontaan naa trop ci yéen gën a kontaan nuyu waa TFM yëpp yi yàlla ñu fekkee ay déwén yu bari bari ngeen baal maak baal naa yëpp tey bisu baalante àq la ngeen baal ñu àq ñun en tout cas ñu ngi leen di baal euh, lu dul jàmm jàmm ko gën nañ ko def rek ci jàmm euh, bu ko defee yëf yi mën a neex Viviane euh, tey maa ngi wax keroog ni da nga toll foo xamante ni ci aar sa musique dëkk yëpp dañ koy fecc mhm. boo demee Conakry dañuy fecc Viviane n'est-ce pas Djibi boo demee Bamako dañuy fecc Viviane boo demee dëkk bu mel ni Abidjan dañuy fecc Viviane ngay artiste boo xamante ni da nga nekk waykat ba pare bëgg ay way man loolu xam naa ci dara donc tey bu ñu nasee guddi gi jël première partie bi euh, mu nekk traditionnel ñu woolu jibi ak maman chérie lan ngay yëg ci ci ci ci ci ñi nga bëgg ci ni nga bëggee musique mais Pape munoo sax xam mbégte gi ma àndal fi nekk nii mhm. ndax euh, jibi man yàgg na euh, bëgg naa def ak moom dara ah. ndax dafa am benn morceau boo xam ne loolu yàgg na de mhm. dañ ko daan teg mais ñëpp dañ ma wax ne ma lii jibi lañ ci sentir lii jibi Dramé bis bu ci woyee dëgg ndax euh, ndaanaan rek mooy yëg moromu ndaanaan mhm, mhm. waaw mhm. Euh, te moom yàqul ci aar bi dara te tey ñoom musique bi nga xamante ni moom la ñuy tëgg ñun mooy sunu culture loolu la ñu am euh, donc tey buñ ko tegee boole koog Viviane. Mhm. tey dara du doy Pape. feneen feneen dara du doy tey moom. tey Pape ndar ngay <laughs> yàq plateau bi. gis naa gis naa ay jamono. Mhm. Euh, bi nga demee Mali. parce que euh, fa la musique man danga fekk baax. ma gis non seulement niñ la accueillir. Mhm. Euh, gis boo demee di jouer ci club wala ci fi ñuy organiser seen concert yeeg yooyu c'est-à-dire malien ya fay nekk sax ñoo lay gën a bëgg ko sénégalais yi. ñoo ci ëpp macha allah. Euh, sant yàlla rek encore. Euh, di wax ne rek euh, liggéey rek moo am solo. ba pare liggéey. ñëpp ñëpp bëgg ko. Pape loolu dafa dafa neex. donc delluwaat di sant yàlla. di sant Afrique. di sant fans yi. di sant ñëpp ndax li may wax rek ñoo ma def ni ma mel nii. surtout sa fans yi. voilà ñoo ma def ni ma mel nii bëgg la. voilà mhm. tey su ma demee ba ma ko ñëpp génn wuyu si ma. ah euh, ma dem Mauritanie ñëpp génn wuyu si ma. Mhm. fépp fu ma dem macha allah. Mhm. sant yàlla la. Mhm. dolli rek liggéey. liggéey bi gën a baax. c'est très important. liggéey bi gën a baax mais euh, période bi ñu nekk nii lu bëri dafa taxaw wax naa sànq ni namm nañu nuyu di bazin. namm nañu eh, programme yi nga xamante ni da nga ko daan tëgg boo wooyee oh, maman chérie këf këf fële mais malheureusement bi crise bi amee ba tey naka ngeen di dundee waaw Diallo Diéry balaa may ñëwaat ci crise bi d'abord damay tontu Viviane. Mhm. wax sa mbaax sa nawle wax sa mbaaxam. wañul mhm. mbaax sa mbaax dara. Mhm. sam olof olof bi leerul. mais dégg nañ li ngay wax. <laughs> mais dégg naa ñuy wax de. nañ dégg nañ ñu nit. ah Viviane yow da ngaa fekk rek yow da ngaa wax rek. mais lu nekk ci Djiby Dramé yàlla xam doy na. ndax euh, man woy su amul ndeysaan neexul. ah te woyam yëpp sentiment la. te woy Viviane yëpp santiment la. Viviane nañ def dara. incha allah incha allah rabbi dañuy def dara fii ngeen ko waxee. fii ngeen ko waxee <laughs> doon. te duo lay doon. <laughs> Eh. soobee yàlla dañ koy def. Eh. waaw Pape Sa Diallo mbas bi moom dañu nee rek yàlla ko yàlla yóbbu rek. amiin métti na trop. Mm-hmm. soo xoolee clip Viviane bu bees bi. Mm-hmm. même pas une semaine trois jours un million de vues. Mm-hmm. Viviane maa ngi lay félicité waxal merci. merci merci. <laughs> macha allah rafet na. da fees. da fees. loolu mbas bi dafa yàq lu bari. man mi génne sama kilim mbaalu daabo. Sénégal yëpp apprécier ko. macha allah mbas bi ñëw. mun ma mun ma ko def euh, nuyu du basé. wallaay munoo def nuyu du basé. mun ma def niveau euh, niveau international. dëgg la dëgg la mun ma def niveau national. Mm, mm, mm, sama téeméer morom si artistes yi. Mm-hmm. ñu xam ne période bi tey soo xoolee télévision clip bees rek ngay gis. wallaay te ku ku ku ku génnee nga ne bii moo dàqat. kon nag euh, dañuy ñaan yàlla mbas bi na dem. Viviane mm-hmm. mm-hmm. commencé. man Djiby Dramé commencé sama nuyu du bassin. Mm-hmm. sama téeméer nawla ak juróomu commencé. jàmm dem kanam parce que ñun lii la ñu xam. 4 mois 5 mois euh, Pape Cheikh Diallo. on n'a pas travaillé. yàgg na de. ah ça c'est dur pour les. mais comment comment vous di def. pour euh, ah, c'est dur. de parce que kenn tëggul. ah cinq mois c'est dur de. c'est mais nag sant yàlla. xam nga am na ndeysaan. ku la yéenee même soo woyul sax mu teral la. dëgg la. Mm-hmm. billaay alazim jàllu jéen. Mm-hmm. damay nekk sama biir kër ñoo xam ne Djiby Dramé ndeysaan ñi yéene ma. Mm-hmm. ñu ne soo suñu amoon suñu suñu sa concert. wala ñu gis na nga am sa suñu gént suñu mariage. da ngay teew. kon donte nag yaa ngi toog te xam nañu si si yow suñu yéene si yow. dëgg-dëgg nag am yaa ngi ni def ko def def ko si ciin dëgg la. Diallo Diéry ñoom du ñu compter. su ma compter fii laay fii laay fii laay fanaan. fii ngay fanaan boos. yàgg nañ ma di ma di ñu ma teral si biir si biti. Mhm. man dama ne ku ma ku ma teral sa confirmant mii. Mhm. sa géwél laa doon ba Issa di wàcc. Mhm. confirmant. 4 mois 5 mois Viviane. metti na ku la ko teral. kooku da nga doon géwélam ba Issa wàcc dëgg la de léegi ndéwénal bu njëkk bi laa bëgg a joxe te ay way lay doon. te way bu njëkk bi euh, yow la ñu ko bëgg a dénk. ah bon ko defee nga ubbil ñu guddi gi nag mënul ñàkk. Mhm. Euh, ñu euh, demee ak traditionnel. Euh, Viviane mën cee bég ndax lépp rek ci tabaski ci télévision Futur Média en même temps nag ubbi téléphone yi. nee naa léegi ndewe na lii ma fi yore ay enveloppe la yoo xamee ni bu ci nekk def na ñaar fukki junni dinaa joxe ba joxe ay jaaro or pour bëggal leen parce que xam naa ni demu leen ñaani ndewenal loolu bu amul. ñun ñu def plan B plan B bi nag mooy woote bi ngeen di woote léegi nii euh, ci télévision Futur Média donc bu amee euh, téléspectateurs yu dugg rek ñu jël leen très rapidement euh, mën a permettre jibi ak maman ubbi tey soirée bi nga xamee ni yéen la ko jagleel ci télévision Futur Média ci deuxième partie bi nag Viviane moo ñu nar a bégal en live maa ngi seen ci ginnaaw musicien yaa ngi préparé ñoom Moussa Traoré ñoom ñëpp pare nañu pour bégal leen ci télévision Futur 05 88 628 22 22 numéro téléphone yi affiché wu yëpp bu ngeen ci làmb rek di ñu daj tey euh, bu ko defee ñu jox leen euh, seen ay euh, ndéwénal ci télévision Futur Média bi tabaski bi jibsee aussi gis nañu solidarité bi nga xamee ni yéen a ngi ci man fekkee naa nga taxaw àndandoo ak sa ay musiciens jàpp ci tabaski bi loolu mooy firnde encore ni période bi ñu nekk ku am wala ku mën dimbaliwaate bi mooy li waaw ndax euh, àddina àddina moom partage la rek. Mhm. jàppalante la euh, ndax yaakaar naa ne boo amee sa ay musiciens. Mhm. mooy jibi li mu wax léegi rek. Mhm. boo foree. boo ñëwee comme tëgguñu. ñëw ci jamono yi ñu toll nii nga bokk kook ñoom du dëgg boo foree. Uh-huh. boo ñëwee bokk kook ñoom. dëgg la de. ah dëgg loolu rek a fi ne. ndax ndax bi muy neex dañu ànd ak yow. Mm-hmm. ah donc yaakaar naa ne bu naqaree tamit yow mi njiit yaa war a mën a taxaw. Mm-hmm. ah daal di dem débrouiller xam nga. Mm-hmm. dem uti. ñëw jàpp ci. jàppale leen jàppale ñi nga xam ne soxla nañ ko. loolu c'est important àddina moom bokk la. mais nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi leen di namee nit ñi nit ñi namee Viviane est-ce que yow noonu ngay namee tëgg noonu ngay namee tëggal leen bégal leen. mais papa euh, ñun musique la ñuy dund. Euh, man mënuma toog sans musique. Mhm. parce que loolu laa xam. Mhm. ci laa ci laa màgg ci laa juddu. Mhm. donc euh, ba tey jii nii. musicien dañ may woosa naan ma yaay yaay yaay lii lan la nii. <laughs> donc voilà dañ koy namm dañuy am envie jouer. ni ñu fan yi nammee Sénégal ni ñu nammee àddina bi ni ñu nammee ñu jouer noonu lañ leen nammee. ndax ñu ngi liggéey rek di denc. di liggéey di teg. donc yaakaar naa ne li ñu li ñu li ñu liggéey teg ko. Mhm. Pape doy na waar. kon ñu xaar kon ñu xaar te solution xam naa dina am nag léegi incha allah ñàkk parce que il faut il faut que solution am. Ah, voilà bu ñu mënul jouer sax. waaw euh, ay ay places yu fermées ñu mhm. ñu jouer foo xamante ni nag. Euh, air libre lay voilà ñëpp mën nañu toog enjoy. mu commencé bougé waaw comme euh, suñu doyen ñu ngi déglu. Mhm. Gram euh, Youssouf ñu ngi déglu. Mhm. amaana mu am si pexe. solution solution. <laughs> mooy mooy mooy suñu la takk masque am ci tabaski bi ne toog leen seen kër moytu leen coronavirus mi ngi fi ba tey mais bon yàlla baax de toute façon vivre avec mënul ñàkk. ayca ñu xool téléspectateurs yi bu fekkee lépp sotti na ci ginnaaw parce que bugguma téye xaalis beeg ndewe na lii te yéen lañu ko jagleel ba mu gën a guddi xam nga euh, diggante euh, lakkub yàpp Euh, lekkuk yàpp diggante añ ak reer euh, lu ne da ciy xaj te xam nga xar moom euh, defe naa ñi ko am ñëpp jot nañu bànneexu ak seen ay famille donc baax na quand même ñu seddal seen xol à travers woote yi nga xamante ni yéen a ngi koy woote donc ku njëkk dugg rek naa ko jox ndéwénal bu toll ci 100000 keneen ki it noonu ba keroog may joxe jaaro or yi nga xam ne nii ku ñu ko may nga war a bëgg jibi yow la ñuy bàyyi nga dem. Mm. rejoindre scène bi ak maman mi nga xamante ni moo la dar ca subaak léegi lakkal na la yàpp <laughs> waaye boo wooyee mu. mu fayu. <laughs> mu fayu n'est-ce pas. waaw booy woy muy fayu. day fayu de day fayu d'accord kat la. <laughs> allez ñu ubbi guddi gi tey. naye voli lutundoni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الحمد لله رب العالمين الله نبي الله ولنمال فلو alamin mawloɗa alamiñe dugu kolo fense mbe alale walla ñumalon folo Koulibaly mu ngi jógee Sikaso kan may bajanam Aïda Traoré moom lañ ko dippee daa masa wulan yi daa masa wulan tamba turandoo mooy Aïda Traoré jajiri Djiby Dramé ak euh, maman chérie way euh, indi loo xamee ni dégg nañu ko ba tàyyi jaajiri xale yi buñ daan tooñ sax dañ naan Youssou Ndour caakiri lay way waaye jaajiri bi dafa bokk ci histoire euh, musique mandeng moom la Djiby Dramé ibee xam naa duñu ñu pareeg moom parce que dañu bëgg mu neexal guddi gi tey ci première partie bi si vous nous rejoignez tey Viviane moo digoon ni ci guddi tabaski day ñëw àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média def na ko yaa ko waxoon def nga ko. waaw Djiby Dramé ànd ak euh, maman chérie ubbi guddi gi deuxième partie bi nag daañu euh, ànd ak Viviane ak Jolof Band mu tëggal ñu euh, dinañu waxtaan itam ci projet yi nga xamee ni Viviane moo ngi ci waaye li ñu leen digoon sànq itam mooy seen i ndéwénal dañu koy joxe bu dee noppi ngeen man maa ngi xaar rek depuis sànq 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi téléspectateur bi njëkk a tey ci guddi tabaski ndéwénalam dina toll ci 100000. dina ci am ay téléspectateurs yoo xam ne ni ay jaaro or laa leen di may jaaro yaa ngi tege ndax ndewenal nag euh, lu mu duun gën lépp rek ci euh, télévision Futur Média donc bu ngeen gaawee dugg mën nañoo kontaan li nga njëkk a dégg mbaa bëgg nga ci euh, ma mais Pape man mënatuma téye sama bopp. ah. sànq ba tey maa ngi yëngatu. parce que da bëgg musique. dama bëgg musique ba pare nag sama yaay yaayam bambara la. en plus. loolu tamit xam nga ñoom seen musique dafa nekk sama. donc deret deret moo la tooñ. voilà deret daf laa yëngal. mi ngi nii yëngu naa. yëngu nga <laughs> dafa neex Pape. seen musique man dafa neex. voilà dafa neex torop torop torop. ba pare leneen la. Mhm. da lay yóbbu feneen foo xamante ni sa xol dafay sedd kon ji bi ñu bàyyiwaat la nga bégal ñu ak maman chérie balaa ngay ñëwaat nag ñu waxtaan parce que am na yu ñu war a wax ak yow. abako <laughs> siriki kaba de siriki kaba ma tamba kunda jandu layi kaba anyana jalolu masuni kuboje nyode fo ni manya kibe jalolu son jalol son jali min te don no moye ni manya kibe jalolu son mama adi jali mama jali mi te fisru reste comme ça elle va rester comme ça man loolu man leer na ma Djiby Dramé ak euh, maman chérie ba léegi rek ñu ngi ci première <laughs> partie bi ci guddi gi ci euh, télévision Futur euh, Média Viviane def naa kontaan nga te yow lii nga bëgg man ngi koy wax depuis ay woy nga bëgg mais boo gisee xale yi ni ñu amee talent bu ñu woyee ñëpp ne gongo loolu sa fierté la non sama fierté la ba mhm. pare lii ñoo ko moom mhm. lii sunu alal la sunu yëf la mhm. euh, macha allah jibi euh, ak soxnaam euh, voix bi nga xamante ni moo nekk ci ñoom dafa dafa raar ba pare dafa raar booy jibi bu ne dar macha allah ah, ah. <laughs> nga xam ne woyantuwul de. woyantuwul moos de woyantuwul macha allah ak chéri kokom bi <laughs> eh. euh, donc musique bi. Mhm. neex na. Mhm. Euh, rafet na. Mhm. man daal li may wax rek mooy yàlla na gën a yokk gën a jëm kanam. amiin amiin yàlla gën a yokk xéwal yi. amiin amiin xoolal li mu improvisé léegi. ah oui ah oui te loolu la ñuy doyee artiste. en fait ba pare ñoom seen musique dafa funky te xamuñu ko. pap xam nañ ko sax de. mais man li may yëg ci xalam yi. ak buñ koy. Mm-hmm. xam nga musique bi mm-hmm. buy ñëw. Mm-hmm. maa ngi gis leneen. ak ni ñi harmoniser. maa ngi gis leneen biit la yoo xamante ni da koy mën a fecc foo ak ak xeet boo mën a bokk mën a bokk da ngay dégg. da ngay dégg musique mandeng baax na des na tuuti ñëpp dinañ daw si ñëw jël si lii. bravo Djiby. bravo Djiby ak chérim on est très content <laughs> voilà donc balaa euh, ñuy euh, continuer waxtaan bi ñu fàttaliwaat leen ndéwénal yi. c'est vrai que maa ngi euh, maa ngi taaxeerlu ak euh, seen ay woote ci 88 628 22 22 ak yeneen numéro yi nga xamante ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi euh, déwénal si nag bu nu ko dee def normalement dafa war a ànd ak ndéwénal si vous nous rejoignez Viviane moo ko diggee woon def na ko tey bu ca kanamee dinañu tëggal defal ñu lu ñu namm ci moom ndax heure bi daan na fekk ñuy waaj jouru tabaski ak lendemain tabaski Viviane ak Jolof Band Djiby Dramé mi nga xam ne ni moo ñu tàmmaloon euh, nuyu du Bazin tey euh, itam bégal na ku dul sénégalais ndax bi muy woy sànq ba tey xam naa ni sambe euh, sambe jaa ngi jolli ndax ñun bu dee Sénégal dañ naan déwénati boo demee dëkk yu mel ni Mali wala Burkina Faso sambe sambe la ñuy wax donc déwénati leen di balwaat ax tey baale xam naa ni sax woy yi neex na yàkkamti ngeen Viviane woyal leen waaye li leen li leen di gën a bégal bokk na ci ndéwénal yi ma diggee ba ñu tàmbalee ba tey ci ndéwénal ndéwénal yi nag laa bëgg a tàbbi balaa jibi euh, di woyaat ba ñëwaat di ñu euh, fekk si ci plateau bi moom ak maman chérie ñu waxtaan tuuti euh, doog dem ak Viviane Viviane nag ne ci projet bu am solo boo xamee ni moom dina ci gis boppam waaye talent yi nekk ci àddina yëpp nañ ci gis seen bopp ndax am na label boo xamee ni créé nañu ko ci diggante toog leen seen kër diggante confinement mu am liggéey bu am solo boo xamee ni def na ko moom ak staffam dinañ ci waxtaan xam naa bu ca kanamee parce que nañu ko euh, partagé ak yéen te loolu man leer na ma ni ndewenal lay doon pour sénégalais yi ndax nag Viviane dem euh, ba ubbi labelam loolu rek la ñuy xaar cay artiste ku mel ni Youssou li mu fi créé cay emploi bëri na keneen ak keneen noonu noonu la ko Salif Keita defee dëkkam noonu la ko Angélique Kidjo defee dëkkam noonu la ko Kumba Gawlo defee dëkkam noonu la ko Viviane itam defee ci dëkkam moo tax dañ ci waxtaan bu ca kanamee en attendant euh, ñu xool téléspectateurs yi nekk ci ligne bi maa woon ku dugg rek dama lay may 100000 muy sa ndéwénal ku dugg it mën naa koo may jaaro or muy ndewenal te ndewenal lu mu duun rek gën allo allo allo. allo. allo. allo. allo. soxna si na def. maa ngi fi. déwénati. baal ñu àq. dégg naa boobu ba tey yaa ngi woote ci euh, télé bi bëggoon ci ndimbalu tabaski yi. a ñun dey euh, euh, tey it dañu koy àggali ci guddi euh, tabaski noo tudd. yaa ngi tudd. Safi Kan. Safi Kan Safi fan nga dëkk. usine benn tali. usine benn tali. waaw. alors Safi Kan xam nga ñaata laa lay jox ndewenal balaa ma lay téye lu yàgg ci ligne bi. ah. télévision future Média may na la cent mille muy sa ndewenal. ah loolu neex na. yaa ko moom kan yaa ko moom. dégg naa ko fekkee ne déwén. jërëjëf yaa ko moom jërëjëf. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax. merci et déwénati ne quitte pas comme ça ñu jël la ci ginnaaw euh, mën a organiser ba nga jot nu mu gënee gaaw ci euh, ñaar fukki junni yooyu nga xam ne ni euh, mooy sa ndéwénal na beneen téléspectateur dugg dañu koy enchaîner ku dugg rek ñu jox ko ndéwénalam mën na doon cent mille wala jaaro or ku ne lii sa wërsëg tey ci guddi gi di nga ko am ci euh, télévision Futur Média mën nañu ko yemale rek euh, ci waajal euh, tabaski waaye nag dañuy joxe ay ndéwénal ndéwénal yoo xam ne ni ñaar fukki junni la dinañu dem sax ba deux millions tey ci guddi gi 2 millions yi nag bu ngeen ci bëggee bokk ak pariru or yi ñuy joxe mu toll ci 24 carats mën ngeen continuer di woote ci 88 628 20 20 wala 88 628 72 86 88 628 04 05 wala 88 628 22 22 ma mayaat leen comme d'habitude tuuti temps le temps ngeen composé euh, benn ci numéro téléphone yi bay dugg en direct euh, pour ñu euh, teral leen allo. allo. kooku. la Mohamed. yow la Mohamed. waaw. Mohamed yaa ngi dëkkee fan. Thiès. ci Thiès nga dëkkee Mohamed. ci Ngent. Ngent ah, yaa ngi dëkkee Ngent. Ngent portugais wala ban Ngent nga dëkkee. non Ngent portugais waaw. très bien déwénati. waaw ah, déwénati baal ñu baal nañ la nga baal ñu. yow comme sénégalais yu bëri euh, dégg naa avant tabaski yaa ngi doon woote tout le temps ci télé bi pour ñu dimbali la ci waajal tabaski bi. waaw nag yàlla boole na la ci ndéwénal yi. ah jërëjëf nga di yaa ngi wootee Thiès. télévision Futur Média may na la cent mille muy sa ndéwénal. waaw ah, voilà ndéwénal boo xamee ni daal mu ngi tollu ci ñaar fukki junni. amiin yaa ko moom Mohamed. déwénati. ayca ne pas comme ça ñu jël la ci ginnaaw nga mën a jot ci euh, ñaar fukki junni yooyu ñu la jox euh, muy sa euh, ndéwénal. Aïcha wooy leen di dugg bu beneen téléspectateur duggee ma jox ko jaaro or wala mille ak fu ngeen mënti nekk ci Sénégal ñu ngi am mbégte lool ci feetu tabaski ak yéen yamuñu rek ci Viviane. bi ngeen di gis doyoon na ndéwénal yamuñu rek ci Viviane mi leen di waaj a woyal en live ak euh, euh, Jolof Band doyoon na ndéwénal yamuñu rek ci Djiby Dramé mu di duyoog soxnaam maman chérie woyal leen yóbbu leen Mali ak musique mandeng ak ni mu neexee yamale ko foofu loolu rek doyoon na ndewenal mais dañ cee teg ay enveloppe yoo xamante ni mu ngi jëm 2 millions euh, plus ay euh, euh, parure or yu toll ci 24 carats donc 88 628 76 76 bu amee beneen téléspectateur bu dugg ñu jox ko mu mën a jël yëfam nu mu gënee gaaw ndax fi mu ne jamono dafa naqari te segam artistes yi ñoo touché waxatuma la ak yéen ak ñun fi mu toll tembe nag jamono dafa metti peeru metti boo xamante ni moo tax nga leen di xelal tout le temps ñu bañ stressé stress baaxul loo banque banque bul stressé lu problème bi toll bul stressé. bu ne ku xebul sa noos. dëgg la. kenn du la dàq noos. dëgg la. mille francs noos cent francs noos. te loolu dafa am solo. mbote noos kuy noos. ah waaw mais lan moo boo amee sa cere noos boo amee sa sombi noos. lan moo tax ñun Sénégalais ñu bëgg ay noos yu rëy alors que lu ne mën nga cee noos. déggoo ma ne la sunu borom bi dafa maye te yemalewul. dëgg la euh, moo tax ma ne tey euh, stress moom. Mhm. Euh, ku bëgg a gis rek sa sa sa morom li mu am nga ne dinaa am par force lii. te excès gul da ngay sonal sa bopp da ngay sonal sa bopp donc voilà li may wax rek mooy stress moom. Mhm. nañ ko jël teg ko dàq fële quoi. dina la màgget loo. dëgg la dina la feebar loo. dëgg la de ah, dina la jox loo loo xam ne xamoo sax la la. doo xam fan fan nga koy lijjantee mu nga donc pas de stress bu kenn stressé 88 628 20 20 bëgguñu ngeen stressé. dañu bëgg ngeen bég tey ci guddi gi moo tax euh, wax dëgg yàlla bu doon en temps normal fii ngi fees dell ñu def ko jotaay wu yaatu waaye comme dañuy obligé ñun itam di respecter euh, li kër docteur tuddee mesures barrières moo tax rek ñu weet ci plateau bi mais en même temps yéen tamit yéen a ngi bég euh, ci seen i biir kër ci euh, numéro téléphone yi ngeen dugg ñu jox leen seen ay ndewenal 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Pape Pierre. kookan la. man la Adama Dikko. Adama Dikko na nga def. fekkee déwén. maa ngi fi waay waay waay amin waay yow it nga fekkee déwén. amin amin yàlla nañ koy yàgg di fekkee. mais Dicko 2019 ak 2020 xaw naa doy waar de. doy na waar doy na waar tabaski corona. wallaay tabaski corona dara dara dara dara neexu ci. bi tabaski bii moom moom mais sant rek fekkee ko rek. heure bii daan na la fekk nga ñaani ndéwénal wala nga dem di ziar. bii daan fekk ma dem di ziar. maa ngi ziaraale Viviane Mhm. yow foo dëkk daan na la fekk nga ziyaare ji waa léegi foo dëkk yow. maa ngi dëkk parcelle unité dégg naa avant tabaski da nga doon woote tout le temps pour ñu jox la ci ndimbalu tabaski yi. damaa woote ba sonn. ah kon tey santal yàlla ndax da ngay bokk ci ñi télévision Futurs Médias di jox ndewenal may nañu la. léegi yaay tànn bu la neexee cent mille wala wala jaaro or wax ma loo bëgg loo bëgg ndewenal. waaw ma jël cent mille yi rek. cent mille yi moo la gënal jaaro or bi <laughs> <laughs> pourtant jaaro or bee ma sori rek waaye euh, dëgg dëgg mag la ma moo tax mënu maa bougé euh, pour jëlal la ko mais wax dëgg yàlla buggoon naa laa may jaaro or de. ah jaaro or bi tamit neex na de. waaw léegi kon bàyyi ma may la cent mille comme moom nga moom nga njëkk a tànn. may nañ la may nañ la ndéwénal bu toll ci cent mille francs cent mille yaa ko moom. ah loolu neex na loolu neex na. mooy sa ndéwénal. kontaan naa ci Pape jërëjëf jërëjëf. Viviane sama fan dama ko bëgg Viviane. merci beaucoup maa la gën a bëgg. merci dama la sopp bëgg la. kontaan naa man maa leen gën a bëgg. macha merci beaucoup. ok merci. <laughs> allez ne pas comme ça ñu jël euh, sa ay coordonnées mën a organiser nga mën a jot tey tey tey tey tey euh, li nga xam ne nii euh, mooy sa ndéwénal donc ndewenal yu duun la télévision Futur Média di joxe teranga dina bët gis ngeen ko noonu mu ngi ñu rangele ci plateau bi am na itam ay jaaro or bu amaatee téléspectateurs yu nekk ci ligne bi ñu jël leen ndax yéen it ci ngeen bokk bu ko defee ku dugg rek mën a am ci ñuy maye Djiby Dramé la ñuy bàyyi mu woyaat. mën a bëgg. mu bégal ñu moom ak euh, maman chérie ñu ciy bégal nag euh, bu baax suñu xarit yi àndandoo ak ñun euh, ci guddi gi ci télévision Futur Média Adja Rokhaya Diakhaté bambara la bëgg lool musique mandeng moom laa ciy bégal euh, di ci bégal itam sénégale yi nga xam ne ni actuellement vous nous regardez depuis Bamako capitale euh, bu Mali boo demee Kalabankura Lafiabougou quartier yooyu nga xamante ni euh, malien yaa nga fa bëri na ay doomu Sénégal yoo xam ne ni bu ñu namee Jolof rek dañuy seetaan télévision Futur Média mu mel ni télévision nationale mission bee mel noonu mission au service public la ñu am moo tax événement bu am rek télévision Futur Média moo leen di gënal ci taxawaay tey guddi gi li réew mi bëri programme yëpp xam naa ni yéen yëpp yéen a ngi ko kal ci euh, TFM loole ñu ngi leen ci gërëm bu baax bu ko defee ji bi sambe sambe ñu bàyyiwaat la nga bégal téléspectateurs yi ñu doog a àggali jotaay bi. Sal Djiby Dramé bëggal ñu ak euh, maman chérie tey ci guddi euh, tabaski ci télévision Futur Média xam naa sax euh, doyalu leen waaye tey sambe sambe gaa ngi jolli ci dëkk bi di jolli ci kër yi ngeen àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média xanaa fàttaliwaat leen rek ni ndéwénal yaa ngi tegee ay enveloppe yu def 100000 ak it ay jaaro or numéro yu nag du ma jóg ci jëleen leen ko fàttali parce que tubaab nee na répétition dafa pédagogique defe naa tey bu ñu tollee ci lu mel ni tabaski tabaski corona Euh, baax na ñun ñu joxe ndéwénal yi parce que euh, ziarante peut-être euh, yombul dem ñaani ndéwénal peut-être yombul waaye ñun ñu ngi fi pour teral leen 88 628 20 20 88 628 22 22 numéro yaa ngi affiché wu nii ci suufu écran bi bu geen duggee rek jot ci seeni i ndéwénal te mën ñu may ba 2 millions tey ci guddi gi ci télévision Futur Média alors Djibi nga def lu neex léegi ànd ci ak maman ma dégg te xam naa loolu Viviane dina ci kontaan nii ci biir confinement confinement bi parce que confi bon euh, ñun sax defuñu woon confinement mais dañu doon imposer wala di ñu xelal euh, ñu toog suñu kër pendant que ñëpp toog seen ay kër euh, am na liggéey bu am solo boo xamee ni yaa ngi ci woon yow ak maman ma dégg ni da ngay préparer album international album solo maman tamit di préparer albumam ah. album solo international <laughs> xamuloo fan laa ko xamee nag mais loolu dégg naa ko ci liggéey boo xamante ni yéen a ngi ci bopp ba tey jibi waaw jàllo jéeri xam nga mbas bi kenn yaanu ko mais nag dafa yee ñun artistes yi Viviane mun na ma seede ndax euh, nekk sa biir kër ñun tàmmuñu ko mhm. da xool euh, si année bi douze mois yi mhm. soo xoolee dañuy euh, dañuy compter les jours mhm. ñu nekk si biir kër far nag yàlla def ñu def def ndogal bi ñu ne ko balaa ñuy lekk di naan wala di tëdd nelaw pourquoi pas duñu liggéey voilà ma nag maman chérie ñu def réunion ma ne ko léegi maman on va on va comme yàlla def na lii léegi nag euh, il faut ñu am euh, benn pexe. maman pardon ma gis la il faut qu'on parle. <laughs> ah moom <laughs> diggante minuit une dëgg la de xale yëpp nelaw heure booboo neex a waxtaan <laughs> macha allah maman kaay ma gis la waaw. yàlla jéeri bu ñu waxtaanee uh-huh. yàlla def na macha allah ñu am si pexe très bien mooy nag euh, ñi nekk individuel mm-hmm. parce que sénégalais yi ak sénégalaises yi dañuy wax Djiby Dramé pourquoi maman chérie mënoon wooyu moom kese individuel dëgg la ma na ko maa ah, franchement mun na ko mën mm-hmm. na ko amaana sax moom moom moom moo xër rek si borom këram mën mm-hmm. na ko soobe yàlla dina am far na mën na ko maman nag da nga def sax individuel maanaam pas de problème. Mhm. ma ne ko man tamit nee na sama individuel. donc moom da doon xaar ndigal yow tam ngay xaar ndigal ba kenn ku nekk décidé. décidé euh, pour au moins génne album am album solo. am album solo. waaw ba pare na mu doon international. boo xam ne lu nekk am na si biir. Ah. parce que musique mandeng lu ma la wax rek euh, Pape Sa Diallo. Mhm. Euh, Viviane mun na ma seede. Mhm. mun nga woy n'importe quel genre de musique. ci musique mandeng. ci jouk macha allah si mbalax. si fu naanaa lépp loo xalal mu jug man denk mu mun na mun na mun na dem fu ne fan na bu ñu ko defee nag macha allah maa ngi remercier Bilil. Euh, macha allah yàlla ñu may nañu ndam. léegi nag album bi pare na dañuy ñaan yàlla. mbas bi jógee fii rek. soobee yàlla incha allah nga ñuy génnee album bi individuellement Mama Chérie individuel ji bi Dramé. voilà parce que Mama Chérie lu ñu bëri loolu la wax fii Sénégal dañuy ah. wax ni euh, euh, maman kañ lay génne albumam moom. Ah. albumu boppam parce que tey sànq wax naa ko fu ñuy dégg woykat yu mag yi. Ah. fu ñuy dégg Oumou Sangaré Angélique Kidjo wala di fa dégg Ami Koita. wala di fa dégg Kiné Lam wala Fatou Guewel. yow itam foofu lañ lay séentu donc bi nga xamee ni waxtaan nga ak jibi ba kenn ku ne euh, décidé pour mosal Afrique mosal àdduna album boo xamante ni sa albumu bopp lay nekk bu bokk du bokk ak duo bi ba tey loolu defe na euh, lu lu mag la lu ñu doon xaar ñun sénégalais yi waaw Pape Cheikh damaa rek xam nga loolu la wax chaque jour mhm. man chaque jour maa ngi ci ginnaaw sama jëkkër mhm. peut yàlla dox na léegi la jot wallaahi. xam nga moom tamit albarka. macha allah. parce que maman mënul dara. wallaahi maa ngi ci ginnaawam rek. wallaahi. Euh, ñaan yàlla rek yàlla feebar bi jeex ci dëkk bi. amin amin amin su jeexee maman chérie génne ak yeneen affaires yi. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. boobaa waa Sénégal dinañ kontaan. Mm-hmm. <laughs> dinañ kontaan yu baax a baax. parce que moom jàppale na ma yu bari. macha allah jàppale nañ ma bu bari bari. ne mama mama mama mhm. du dara moom la moo tax dëgg la parce que nga ne man malien la mhm. mais ma am nu yeneen doole fii mhm. yëpp moom la yëpp moom la loolu moo tax chaque jour dama ne man duma ma sonn du ma taay ci moom parce que soo am borom kër gi mi ngi lay sagal di la soutenir di la wone adduna yëpp noo ko fay dëgg la man dama koy ñaan yàlla rek. <laughs> ci kanam kanam rek. amin waay amin waay waaye kii moo baax waay. <laughs> non non lii daw na yaram. <laughs> wax dëgg yàlla lii rek la ñuy doyee. Ah? surtout mu nekk sa jabar wala sa borom kër. non lii rafet na la ñuy soxla. rafet na rafet na man sama yaram dafa daw. wallaay sa yaram dafay daw mais en tant qu'artiste. Ah. Euh, defe na euh, ñoom dañu lay feelu. ndax bi ma enquêté barki démb bi ñuy def émission maa ngi la koy laaj c'est ko que sori wuñ ci. Mm. Euh, dem nañu ba léegi. Viviane créé labelu boppam. Mhm. label boo xamante ni du produire Viviane kese. Mhm. mais dafay produire artistes yi nekk ci Afrique yëpp. Mhm. boo gisee tey euh, muy jibi muy maman xale yi am fit léegi di di génne ay album di def ay production loolu mooy wone encore ni euh, musique bi du taxaw woy rek mais di entreprendre itam dafa am solo. dem ba créer sa labelu bopp Viviane. dëgg la euh, Pape li nga wax lu am solo la. ndax boo xoolee man sama jaar jaar. Euh, ci ki nga xam ne ci moom laa jaar euh, bu ma xoolee ci moom rek war a mën a créer lu bëri. Mm-hmm. ndax euh, nit da ngay am ambition. Mm-hmm. nit da ngay am vision ci addina nit da ngay bëgg lu baax bëgg mm-hmm. egg fu sori. donc yaakaar naa ne tey li ngay wax bopp ba tey Viviane bu demee Bamako bu demee Mauritanie. bu demee Abidjan. fu nekk Nigéria voilà fu nekk voilà fu nekk rek boo demee gars yi apprécier donc yaakaar naa ne yoon la tey liggéey boobu tam nit ci niñ la bëggee. Mhm. nga mën a créer sa yëfu bopp. Mhm. boo xamante ne yow li ngay def ku ci nekk dina ci gis boppam. Mm-hmm. voilà ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni euh, ñu ngi ko maa ngi koy pare incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. pour artistes yi. pour pour pour ñëpp ñi nga xam ne dañoo bëgg lu baax. parce que ñëpp ci bokk. voilà ñëpp ci bokk dafay yaatu en fait. voilà label bi mu ngi tudd VQ. lépp loo xamante ni mooy qualité. Viviane qualité. donc lépp loo xam ne rek euh, muy euh, produit. boo xam ne dama koy génne. muy nit bu may artist artiste. lépp loo xam ne rek. Euh, day day ñëw euh, ci VQ. Mhm. qualité lay doon. Mhm. looloo tax. donc loolu defe naa mun nañ ko jàpp donc label euh, bu Viviane mu ngi tudd VQ tey qu'est-ce que ça te fait boo demee nag ba mettre en place teg. Euh, sa labelu bopp lan lan la lay def Viviane waaw euh, gën a dolli rek euh, force pour gën a mën a dem mhm. ndax bul fàtte Pape dama am nag staff équipe boo xamante ne bu mag bu nekk sama ginnaaw mhm. ñu ngi may jàppale ñu ngi may taxawu mhm. ñu ngi may pousse pour may de pour pour pour ma gën a dem ah, donc maa ngi leen di remercier bu baax Jolof Band Ibrahima Ndour ah euh, ñëpp ñi nga xamante ni euh, ñoo nekk ci sama ginnaaw mhm. euh, maa ngi leen di remercier mhm. ah parce que ba voilà ci taxawaay bi surtout parce que ku ñemee dañ laa dee voilà mhm. donc maa ngi leen di remercier maa ngi remercier ñëpp voilà ñi ñu équipe bi. Mhm. voilà parce que comme li ñuy wax peccum liir moom bu neexee euh, nday jaay jàpp ca euh, mbagg ya donc doon jigéen euh, nekk ndaw di demal sa bopp def plus de vingt ans de carrière dem ba créer sa labelu bopp loolu defe na fierté la non seulement pour jigéenu Sénégal fierté la pour jigéenu Afrique fierté la pour àdduna bi yëpp. te loolu la ñuy soxla loolu la ñuy doyee suñu artistes yi defe naa fi ñu dégg tey ma limaat Youssou Ndour ci créer emploi ci doon ki mu doon ci ku tàmbalee ay woy euh, loole ku nekk bëgg na ko doon fi ñuy dégg tey Angélique Kidjo euh, di fa dégg tey euh, Ismaël Lo dégg fa fay tey baaba Maal kenn ku ci nekk nga am ay activité parallèles yoo xamante ni créer nga ci ay emploi pour sa dëkk muy Salif Keita et les autres loolu itam boo demee yow ba def ko ñu lu dul kontaan ci et xam naa ni fépp foo xamante ni label bi di VQ comme juddu na fu mu nar a dem sénégalais itam dinañ ci gis seen bopp parce que ñun dañu bëgg sax voilà dañu bëgg tey bu ñu demee ba euh, dëkk bu mel ni Nigéria euh, VQ di fa produire loolu suñu fierté la bu ñu demee tey Mali euh, ñu demee fu mel ni France VQ di fa produire ay spectacle Viviane di fa signer loolu suñu fierté la parce que ñun Sénégal Viviane dañu bëgg sac te sac bi yéen yéen ñu ko mën a jox parce que ay ambassadeur ah. yéen en fait VQ bi VQ la ngay def VQ ngeen koy def da ngay ak VQ waaw man nag waaw acca ah. xam nga kon lii am na lu juddu léegi nii lu juddu incha allah léegi nag defe naa jot na pour Viviane woyal ñu parce que sànq ba tey ñu ngi koy xaar euh, Djiby Dramé ak maman chérie ñoo def première partie bi traditionnel na deuxième partie bi nag dafay moderne parce que ñëpp la ñu bëgg a bégal tey ci guddi gi ci télévision Futur Média pendant que Viviane di rejoindre scène bi mën nañ cee profito euh, jël leen ci euh, téléphone yi yéen ñi nga xam ni yéen a bëgg ñu jox leen seen i ndéwénal ndéwénal yi nag mën na dem ba 2 millions ba noppi itam dama cee teg ay jaaro or 24 carats parure yeeg yëpp a ngi tege ci table bi euh, bu téléspectateurs yi duggee ñu jël leen di déwénati encore équipe yu télévision Futur Média moo xam technicien moo xam waa maquillage moo xam rédaction moo xam waa sécurité moo xam waa décor moo xam euh, gaa yi nga xamante ni en tout cas ñoom ñooy liggéey liggéey bu rafet bi ci ginnaaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax déwénati euh, teg ci itam di leen baal wax c'est vrai que ñun ñooy toilette poudre toog di wax waaye dafa am équipe bu mag boo xamante ni euh, ñooy nekk tout le temps ci ginnaaw ak production yu mag yi nga xamante ni ñoo ngi koy réaliser defe naa déwénati gi dama koy teg ci loxol directeur général bu groupe Futur Média di suñu xarit Euh, di euh, koo xamee ni ñoo bokk benn baay di euh, Birane Ndour bu ñu tegee déwénati bi ci loxo Birane mën nañu jël une partie teg ko ci loxo njaga nduur mi nga xamee ni moo ñu jiite te boobu nag ba tey noppaluwul benn yoon jëlaat ngërëm gi teg ko ci loxo Bouba Ndour mi nga xamee ni mooy produire ba noppi itam yore programme yu télévision Futur Média waaye nee nañu peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya déwénati gi itam dañu koy teg ci loxol PCA bu groupe bi di suñu pap di suñu xarit Euh, di euh, président yu Ndour ak ñi mu àndal euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom dëgëral leen ba ñuy am fit ak liberté wu at bu jot ñuy célébrer ak sénégalais yi li nga xamee ni moo di tabaski defe naa nag Viviane dañ lay bàyyi nga dem ci seen bi. acca may ñu ñaar. leen ñaar ñu bëggee pare waxtaan. mais bu ñu mayee ñaar ñu jël. ayca xaaral ma kon ma jox leen ñaar. bu ma ñëwee leen jox ñu ñaar voilà donc Viviane day dem léegi nii sur scène pendant que ngeen di woote ci 88 628 20 20 wala 88 628 04 05 bu ngeen duggee léegi nii ñu teral leen jox leen euh, seen ay euh, ndewenal mën naa ci profité rek jël le temps Viviane di yëg ci scène bi allo alo allo. allo. allo. allo. xam nga tabaski corona nag buñ ci boolee. Euh, may la enveloppe bu cent mille ji bi loolu neex na <laughs> mama ah, xam nga nag euh, jaaro or moom la jeg moom moom la jigéen ji jigéen yi bëgg. waaw 88 628. 22 22. ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci euh, suufu écran bi. profité ci rek gërëm kenn ci samay partenaire muy Kati création mi nga xam ni moo jaar ci grand boubou bi. donc Kati création ñu ngi koy gërëm bu baax adresse ak numéro de téléphone ci suufu écran bi bu ngeen bëggatee lu baax bu leen xaar korité bu leen xaar tabaski ñëpp ci war a dox ni ñuy solee costume cravate nañu xam ne am nañu ñu nit euh, suñu ay sañse yu am valeur te fu ñu ko solee daan donc Kati création euh, maa ngi koy wax déwénati di ko gërëm moom borom këram ak personnel bu Kati création yëpp merci euh, ci collaboration bu rafet bi ak nii nga defee tey ci guddi tabaski ci télévision Futur Média ana euh, téléspectateur bi dugg léegi nii ñu jox ko ndewénalam balaa ñuy ànd ak Viviane ak euh, Jolof Band maa ngi seen Kiné ma ngay ma ngay ma ngay waaj maa ngi seen pam mussa ma ngay waaj seen Nariche ma ngay waaj Moussa Traoré ngay waaj ak Jolof Band yëpp léegi ñoom dañuy ànd ak ñoom ñu euh, bégal ñu may ñu ñaar rek pare waxtaan dolliwaat ñaar tey ci guddi gi ci télévision Futur Média 88 628 04 05 wala 88 628 76 76 kon en attendant ngeen di dugg ñu dem ci scène bi àndandoo ak Viviane ak Jolof Band merci. Viviane ak Jolof Band en live ci euh, guddi tabaski ci télévision Futur Média saa yu génnee gën su ma waxee rek ngeen foog ñi li doomam moo tax waaye defe naa coo. yaayu Saliha mën na ko seede Viviane euh, da ñuy faire plaisir tout le temps sànq maa ngi ne maman chérie Viviane même bu taxawoon photo wu sax ci soirée après dem ñibbi <laughs> loolu rek doy na mais bu ci boolee feeling bi boole woy yu neex yi boole live yi lii la sénégalais yi nam lan moo tax man daal man dama am lu ma naxari parce que coronavirus mii daal parce que dama ko bëggoon corona nag tooñ moo tax nga gëj lii laa ko doon waaj ah. man bal na man lu ma baal tey. Ah. aywa man namutuma <laughs> corona mais ñun ñëpp a baal. <laughs> corona na dem rek. <laughs> yàlla yàlla baax na ah léegi léegi mu dem parce que wax dëgg yàlla war nañu mën a tëggal nag. gars yi ñu enjoy morceau nit ñi dañu am envie dund lii am envie live ak Jolof Band. Eh, eh. sa diggante ak sa fans yi itam bëggoon naa ñu wax ci parce que je me suis rendu compte que am nga ci ay fans yoo xamante ni bi ñu juddoo ba tey yow la ñu àndal. Hmm. am na ci ay fans yoo xamante ni yow la ñu màggandool am na ci ay fans yoo xamante ni duñu sax ay sénégalais mais Viviane ou rien du tout. tey boo gisee muy cœur de ville bu Sénégal bu Mauritanie bu France engouement ak cofeel bi ñu am ci yow looy yëg saa yoo jàkkaarloowee ak ñoom. mais euh, plaisir. Euh, mhm. di yëg nag euh, mbégte bu rëy rëy rëy. Mhm. Euh, di di nuyu rek président euh, fans club bi nga xamante ni moom mooy Ablaye Ba. Mhm. moom mu ñëw na nag tey. Ah, tey moom. tey moom dafa sax ñëw mu ngi mu ngi nekk waaw voilà <laughs> ah, di leen nuyu parce que moom moom mooy gérer. Euh, euh, club yi nekk ci ci ci club mondial bi yëpp voilà mm. parce que moom vraiment maa ngi koy félicité liggéeyam rafet na mm-hmm. euh, weeru koor da ngay gis waa Mauritanie ku ci nekk a ngi def mm-hmm. ay ay ay ay jëf yu rafet yoo mm-hmm. xamante ni même bu ma ci dugalul sama dërëm sax lépp Viviane maanaam ñoom xaaruñu kenn voilà mais Viviane moo leen ñor ci turu Viviane ñu ngi dem di def ay ay ay ay yu noble yu noble mhm. donc maa ngi leen di remercier bu baax mhm. di remercier fans yi rek ñi nekk ci àddina bi yëpp parce que mhm. xamoo nu ma leen di def fans yi nga am eh, yemuñu rek ci sa ay woy toujours dañuy apprécier li ngay sol loolu itam noo koy gisee xanaa bëggee rek kontaan Pape parce que mooy li ma wax rek keroog suñu émission bi passé mhm. euh, bëgg sa bopp dafa dafa dafa dafa bokk ci jàmm yàlla mhm. donc tey musique ak mode dafa ànd mhm. bu dee da ngay woy euh, rafet na nit ci gis la seen xool di neex sañse bi rafet mm-hmm. ñu mën a roy ci yow mm-hmm. euh, xool coiffure bi nga def xool maquillage bi nga def mm-hmm. xool yëre yi nga sol say dégagement yooyu dafa bokk ci feem yeeg feeling yi nga xam ne moom mooy attirer nit yi moom mooy tax nit yi di accro ci artist bi voilà donc loolu c'est important sañse man de la ma ko jox axam ba mu mat moo tax tey Thiané Diagne xaw na laa rey de Thiané nag moom waaw caane moo fi jaar mooy li may wax rek. Mhm. sama gaañ yi dañu xarañ. wallaahi euh, saa yu génnee gën. caane mhm. mhm. moom nag moom euh, yëf yi sax dafa da mooy bi nga programmé rek. voilà émission bi ci laa ko ne alors rek ah. mu génn fii. très joli très joli euh, Thiané merci beaucoup. donc li mooy wane li mooy wane ni sañse dafa dafa bokk ci carrière artiste parce que yéen su waxee Thiané rek. Uh-huh. même si tànn tuuti ingrédients. Uh-huh. ndax Thiané moom fu ne lay fël. Uh-huh. mais man sama jéeg bi mu ñëw si moom. def na benn tournage clip bu passé bi mu woyu ma mhm. caane moo si jaar ay grammes yu garaaw. kon su waxee turu caane rek. da yëngu eh, damay mhm. la defal lu baax wax ko si Pape mhm. Cheikh. Mhm. kon nag euh, remerciement mention spéciale pour Thiané. culture yi bari nañu fi Sénégal. ñu xam ne ñuy jàppale artistes yi. ak couturiers yi bari nañu Sénégal. mais nag euh, parce que sañse dafa bokk ci artiste. voilà merci beaucoup. Thiané bu toujours la même personne. macha allah elle est accueillante ba pare donc Thiané ñu koy gërëm bu baax. baax merci baax merci en tout cas balaa ñu lay retrouver encore sur scène mën nañu profité xool euh, fan la téléspectateurs yi toll parce que sànq ba tey nag ñu ngi woote euh, donc maa ngi euh, fàttaliwaat équipe yi ci ginnaaw ñu yembal lépp bu ko defee ñu mën leen a jox nag lii ñu leen dig tey ci guddi gi ci télévision Futur Média jox leen seen i ndéwénal ay enveloppe yoo xamante ni 100000 la jëm 2 teg ci itam ay jaaro or parure yoo xamante ni mu ngi toll ci 24 carats loolu bu dee pare na ñu jël leen gaaw rapidement ci ginnaaw et j'attends euh, ngeen euh, wax ma yéen ñi nekk ci ginnaaw 88 628 04 05. ñuy gërëm ah. nag euh, ñi nga xamee ni ñoom la ñu àndaloon ci waajal tabaski bi muy sant yàlla boutique gërëm tamit Meissa et frères gërëm tamit bu baax waa Minata création parce que ñoom ñoo mayoon ay bons de couture pour téléspectateurs yu télévision Futur Média donc Minata création merci gërëm tamit Rapidos ci seen collaboration ak télévision Futur Média alo sëñ bi na nga def waay. ça va bien. ci jàmm. waaw sant yàlla bu wér alhamdulilah Pape Cheikh. ko la. Euh, waaw man de Cheikhou Sarr laa tudd. Cheikhou. Cheikhou Sarr. Cheikhou Sarr. waaw. Cheikhou Sarr déwénati. waaw fekkee doon baal baal nañ la nga baal ñu. ay yàlla boole jégal ñun kay ñoo leen di baalu àq ndax li ngeen di wootee yenn saa yi ngeen jot yenn saa yi du ngeen jot. waaw mais noonu la xam nga TFM moom vraiment moom moom suñu suñu télé la quoi. dëgg la dëgg la. vraiment di profiter si occasion bi vraiment seen euh, baalu ak yéen tamit. baal nañu leen ngeen baal ñu. di waaw di nuyu tam sa invité yi nekk foofu tamit bon vraiment télévision Futurs Médias lu mu la ci dëkk bi. jërëjëf jërëjëf. parce que actuellement fu mu nekk nii comme dañ nekk dans situation de pandémie vraiment. Mm, mm, mm. waaw na sookee sax tuuti sax tabaski bi. la de. mais jàpp ngeen ci. dëgg la. te bu ñu mënee toog tey tey ba tey jour tabaski tey ñu toog nii tey. Mhm. vraiment parce que da ngeen ci jàpp. dëgg la parce que gis ngeen ni ngeen def jàppale gars yi ci ndugg yeeg gis ngeen jàppale gars yi ci xar yeeg ak leneen leneen. un pays de solidarité. jërëjëf les difficultés ak suñu différence yi mu ci am tamit. je sais que Sénégalais yi dañ nekk ay nit yoo xam ne duñ surpassé wu. c' est vrai c' est vrai et que lu ñëw rek war nañ ci mun a jàpp ñun ñëpp quoi. dëgg la vraiment je tenais à vous faire une mention spéciale. ah ben gentil c' vraiment ci taxawaay bi ngeen taxaw ci population solidarité bi support bi aide bi entre aide bi dafa am merci je crois que loolu mooy suñu identité. Mm. te ñun war war war war ñu jóg ci loolu dañ ci war di dox. jërëjëf jërëjëf. ah pandémie bi mais je pense on a ñëpp ku nekk sa kër même tey boo gisee sax bu ñu doon dem ci jumaa ji julli. Mhm. respecté nañ geste barrière yi. important gars yi takk nañu masque yi. Mhm. distance distance euh, sociale bi tamit distanciation sociale bi tamit nañ ko. très bien vraiment ça montre une fois de plus que Sénégal tamit c'est un peuple qui est mature qui est mûr. jërëjëf. vraiment yéen def ngeen ci lu am solo en termes de sensibilisation de la population. merci vraiment je tenais à vous remercier à vous souhaiter bon. une excellente fête ah, kontaan nañu ci. Uh-huh. Euh, loolee nga wax jërëjëf loolu rek lañ ciy uh-huh. séentu ndax euh, euh, yéen yéen a tax a jóg jóg yu télévision Futur Média xanaa rek ma jox la sa ndéwénal. léegi yaay tànn xam nga lu may xam nga lu may def ak yow bu la neexee. bu la neexee ma jox la cent mille. waaw ndéwénal. la neexee ma jox la ma jox la jaaro or nga jox ko soxna si. ah xaalis neex waaw. xaalis neex na ñaayam ko jox jaaro or mu def ko xaalis amul soxna si amul dara. non man dama am soxna. non non am naa soxna sax. nga soxna xaalis neex na uh-huh. waaw. or bi rek jox ko soxna si. jeena kon sa ndéwénal jaaro or la nga jox ko soxna si c'est pour toi. Ah, parce que soxna yi moom vraiment ñoom muñ muñ muñu leen tey suñu jabalee suñu yaay. wallaay wallaay wallaay vraiment dañuy jàppale. ah bu ñu demee liggéeyi ñoom nee ci kër di jàppale kër gi xale yeeg yooyu. vraiment taxawaay bi ñoom tamit ci tabaski bi. ah mais yoo xam ne ñu ngi comprendre. Hmm. bi métti na ñu hmm. booleeg lu ñu am lu ñu amul. jamono neexul donc vraiment tamit c'est une opportunité sax bu ñu amee koo xam ne lu mel ni Sud Média mun nañ jox loo xam mun nañ ko jox mun nañ ko jox dëgg la day am solo xaaj bi neex na nag mais nag vraiment man moo gën a ëpp solo xaaj boo xam ne naa ko. kon kon kon tey dina mel ni Saint-Valentin am nga jaaro or pour soxna si dégg nga. mooy sa ndewenal merci nañu ko jël ci ginnaaw comme ça mun a teel a jot ci jaaro oram jox ko soxnaam c'est ça euh, am na euh, woy booy expliqué nii euh, mel ni jaaro or ci loxo ci loxo ku xees loolu dafa rafet. su ma leen di xool sama xol day neex ba mel ni ko gis or ci baaraam bu ñuul bi wala bu xees bu xees <laughs> bravo donc loolu mooy euh, ndéwénalu euh, Cheikhou saar nañu ko enchaîner rek parce que guddi gi moom euh, tey ñu ak yéen ba fajar dañuy doog a julli tey dañoo yendoo lekk yàpp am nañu fër oui mënul ñàkk parce que kalaasu mbay Diouf gi moom xam naa ni dañuy foog ni euh, euh, tabaski benn bis la rek donc dañuy engagé yàpp bi yëpp alors que mën nañ ci dem par ndànk xam nga xëlwa ko disi suba ak gannaaw suba euh, ak guu xaru tabaski doo bëgg xar bi gaaw a jeex yàlla boo denc tànk yi pour tamxarit parce que tamxarit xarit la ñu jëm Sénégal nag daa bari fête mais nañuy bàyyi xel rek euh, ci euh, ni euh, bis bu am rek am na bis buy topp ci moom ndax bis day passé di organiser di calculer parce que jamono foofu la tollu léegi bu ñu yàq barki démb laata tabaski maa ngi wax ni comme tabaski bi dafa tombé woon ak weer bu dee le 31 nañu sóor salaire yi par exemple ku jot sa solde bu ko jàppee solde tabaski mais jàppee ko solde weer août moom dafa metti te à partir de tey dañuy dugg août dès demain Euh, weer la boo xamee ne même bu dul tabaski d'habitude dañuy jàmbat rek ut lii ut laa da ngay teel a banque comme nag dañuy teel banque nañuy calculer di organiser di harmoniser c'est très important parce que jamono neexul voilà xaalis amul ñu ngi ci euh, crise sanitaire bu mondiale nañu gën a góorlu rek ci di korkoral euh, bu ko defee ñu mën a bañ ji am yenn jafe-jafe yi donc très rapidement bu amaatee téléspectateur bu nekk ci ligne bi ñu jël ko 100000 ba 2 millions laay joxe tey muy ay ndéwénal yu duun yoo xamee ni télévision Futur Média moo leen ko jagleel guddi euh, tabaski allo. allo. kooku. man la Pape Cheikh. yow la kan. man la Seynabou na bu Sall. waaw. Lam Tooro fooy wootee bu Sall. maa ngi wootee yow. Euh, Pape baa baal ñu àq tabaski bi. baal nañ la nga baal ñu. yàlla nañ yàlla boole jégg ñu fekk at yu bari amin Sall amin Sall. Pape Cheikh lu la waaye yéen yàlla na si moom yaa baax. jërëjëf Sall. sama biir xol laa la bëgg. jërëjëf Sall jërëjëf Sall. Pape Cheikh xam nga ñaata laa woote. ñaata nga woote teg naa ci fukk muy ñaar fukk ma remboursé la ko. waaw da waaw millions yi nag du ma si am Pape Cheikh. ci millions yi nga bëgg ñaari. <laughs> déglu nag ma ma Pape Cheikh Diallo sama julli na ca ñaanal neew ya ca gaboo ci géej gi dem na delwaar taxul mu ñaaw xaadim mooman ci géej gi mooman ci jéeri ji moomadu mbàkkiw bàyyu ba sax baaraam moo jaboo pour waa <laughs> bi sin xoolal jar na déedéet borom ja nekk langal moo ko seexal Cheikh Mourou Mbagay ca bet waar moo ko seexal xaalis baaxul talaa yëpp lay génn jaara mbay ca jaariyam moo ko seexal sëriñ moo juf lambaay ca lambaay moo ko seexal dëgg la góor gi seexal seex yee jaboo kur waari sin dënn dëgg la dëgg la dëgg la seex jalla yaa ah, ah, ah, sans rek ngay am de ñeneen ñu ma war a may demal te yaay ju baax jeex sa baay bu baax bee la yar yow looy jooy jooy sans ngay am sans yàlla ànd ak la ñaan ñaanal. jël jox ko deux cent yow ñi la faralaa ba ñi la faralul. mais saa rek ko deux cent ragaluma sax saa ngay am ku ragal du sol grand boubou bu ah, jaune waaw <laughs> di nga dem ba nekk président télé bi <laughs> jàll jéeri. su boobaa Youssou lay remplacé jërëjëf. Ah, jërëjëf ah, barke Serigne Babacar. wallaay wallaay wallaay mais saa rek ah daa am ñeneen ma war a jëlee déedéet déedéet jar na 200 jar na 300. Pape Pape sama mag sama mag daa jabet nag li ñu amoon yëpp ñu def ci jëndal ko garabu jabet mu faju jamono neexul ñaar fukki waaw jamono neexul waaye waaye def ma rek ci millions yi ma paap yokkal ma si bakka eh, ah. <laughs> waa léegi léegi may naa la may naa la cent mille tegal naa la ci jaaro or waaw ah, ah, ci barke sëñ Fallou tegal naa la ci jaaro or tegal naa la ci jaaro or jërëjëf Sall ah. kontaan nañu xaalis baaxul xaalis day génne talent bëgg dem bi ma jaaree këram bi mu ne xuteet ba jox ma lu ne wax yàq naa ko fi biir <laughs> keroog damaa fecc ba mujj gi moom sax dafa foog ni xam ah. naa prochain clip am dina ma ci jël xamul ni xaalis baa taxoon ma fecc <laughs> bu xaalis ba jeexee dootuma mën fecc <laughs> xaalis dafa neex nag <laughs> eh, yàlla yàlla may waay macha allah nee na billaay xaalis neex na xam naa ci dara sàlla bu ma ci amoon saako xaalis dafa neex walaay naa am moitié saako est-ce que xam nga ne xaalis day faj yenn saa yi nit feebar ñu may la xaalis nga wér bilaa nga wér day faj ah. yàlla na yàlla dolli sutura. amiin waay amiin waay. te yàlla ñu fekkee rek. daal faj aajo yëpp nag yàlla na aajo ñëpp faju fi mu ne loolu moo jar a ñaan. <laughs> donc seen bu sàll may naa ko ndewenal bu duun cent mille francs ak jaaro or euh, bu toll ci vingt quatre carats euh, bu amaatee téléspectateur bu dugg rek ñu teral ko lépp rek pour yéen fii ba guddi gi jeex ay cent mille euh, jëm deux millions alors Viviane Djibi maman defe naa fii crise bi toll xëj na. kenn defatul kenn tëggatul kenn dematul. mais ci yan mbir mbir ngeen nekk nii di réfléchir pour quand même bégal fans yi Viviane. waaw ñu ngi ñu ngi xool nag euh, mhm. man ak euh, sama sama staff. Mhm. Euh, ñu ngi xool nan la ñu mën a def pour génn ci quand même. Mhm. commencer jouer ci place yi nga xamante ne. Euh, du place yi nga xam ne dafa tëju. parce que loolu peut-être gars yi wóorul sax. mais ñu ngi jéem xool ah, waxtaan ci. voilà euh, xam naa ne daal du yàgg dara dara dara. Euh, dinañu commencé waaw solution dina feeñ moom obligé. sinon du baax du baax de. waaw ba pare nag euh, man moom li ma toog yëpp toogaay bi yëpp. am na yu bëri yoo xam ne tamit enregistré naa ko. ci ay woy yu bees ah. denc ko ay woy yu bees ba ci benn surprise boo xamante ne xam naa ne dina ñëw. Mhm. temps yi rek voilà incha allah dinaa ko maye. Mhm. bugguma wax nag. mais dinaa ko dinaa ko di nga ko jox sénégalais yi. waaw adduna bi ak fan si fan yi. ba noppi euh, ak confinement bi itam euh, defe na euh, temps la pour concentrer wu ci sa njaboot. Mhm. mais heureusement léegi xale yi màgg nañu. waaw macha allah màgg nañu nag voilà. qu'est-ce que ça te fait yenn saa yi nga toog ki démb maa ngi dégg ku may laaj naan ma Viviane moo ñëw wala Zeyna moo ñëw. <laughs> sant yàlla rek xam nga moom boo toogee ba sa doom di sol sa yére. Mhm. di sol sa dàll. Mhm. ah ngeen di bokk lépp sant yàlla la. Mhm. ndax euh, wax bu mu egg sax sunu borom bi la neex donc euh, sant yàlla encore une mhm. sa diggante ak euh, Soxna Waalo bëgg naa ñu wax ci parce que Soxna Waalo suñu yaay la ku ne xam na ni moom mooy Serigne Saliou nga bëgg lool waa kër Serigne Touba yi cest à tey li ñuy tabaski yëpp bu ma la woowee téléphone pour ñu wax ci émission bi li nga may njëkk xamal mooy barke Sëñ Saliou Pape naa ñëw barke Sëñ Saliou Pape loolu daf may ci yow. Euh, Pape euh, maa ngi profité ci occasion bi. Mhm. Euh, di dugg nag biir Touba fi mu nekk nii. Mhm. di ziar murit yëpp. Mhm. di ku njëkke nag ci xalif bi. sunu Muntaxa ah. Mhm. Euh, ak euh, soxna Baali voilà mhm. di ñëw nag euh, ci njabootu sëñ Saliou Mbacké. Mhm. soxna waalo mu sëñ Saliou. di ko ziar bu baax a baax a baax. soxna Faati. soxna waalo njaboot gi yëpp. Ah, bàyyiwuma kenn. Ah, di ziar ñëpp rek. ndax sama digganteeg ñoom sama digganteeg sëñ Saliou ma ciy wax duma pare. wallaay doo pare. duma pare di profiter waale ci occasion bi tamit di ziar. sëñ maam Mor bu baax baax a baax la moom sama sëriñ sama xarit mhm. voilà mhm. Mhm. c'est yàlla mooy boole ay nit et c'est toujours bien euh, Djibi euh, maman chérie euh, tey tabaski yéen a ngi ci projet ñaari album ku nekk ak sa album international boo xamante ni yaa ngi koy pare li ma laaj Viviane rek laa lay laa lay laa lay laaj xalaatu leen ni war nañu wut solution quand pour ñu tëggal fan si waaw Diallo Diéré ah mbas bi daal franchement dañuy ñaan yàlla rek mu jóge fi rek. Mhm. parce que métti na trop trop. amaana lu ma wax rek ma ne ko amul woykat woyul. Mhm. soppe yi ñooy woykat. Mhm, ndax ñu ngi si stress ñu ngi ñu ngi ñu ngi chaque jour ñu ngi ñaaxaat du ñuy du du ñuy xool si YouTube bi. du ñuy xool si Instagram bi. si réseaux sociaux yi. mais ba léegi doyul. parce que ñun dañoo bëgg fu face à face. waaw jàkkaarloo jàkkaarloo mu fees daal mu fees wooy ba mu yàgg nga ni daf fees daan fees loolu loolu loolu loolu lañ ko namm daal <laughs> ko namm macha allah day xool day rek day saan sama nuit du bazin bi bii hmm. nouvelle ordre bu ma ko joxee euh, le le le le lendemain de la Korité uh-huh. imagine toi que man nelaw ma wallaahi sama téléphone jibi dramé lii lan la lii lan la lii lan la kar kar kar ko mais sant yàlla ndax euh, ndeysaan soo xoolee yow sa boss rek nga hmm. xool kenn rek hmm. nga xam ne ñëpp la laal niveau tout le monde ñaan yàlla rek comme Viviane lu mu wax rek. Mhm. ah ñi am solution rek. Mhm. loo xam ne ndey saan même su dee benn bërëb la boo xam ne. Mhm. Ah, euh, loo xam ne lu lu lu lu si jàkkal la ñun di leen bëggee. waaw loolu aussi du ñàkk du ñàkk. ndax nag euh, ñeenti weer bu juróom weer. Diallo Diéry métti na. métti na trop. dafa dafa dafa mujjee yàgg sax. dafa mujjee yàgg trop euh, ba xaw ñoo sonal. voilà mais solution dina am incha allah léegi rek. espérons en tout cas xam leen ni euh, ba tey mu ngi fi continuer leen di respecter mesures barrières yi c'est vrai que tey feetu mënul woon ñàkk euh, ci kër yi baalonte ak saafonte mais nañu ko teg rek ci respecter mesures barrières yi dandante mag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kër yi ñu éviter leen parce que bu ñu leen jegee rek mën na ñu leen indil yu ne mm-hmm. te loolu itam wóorul gën a suñu bopp protéger euh, suñu ay entourage surtout mag ñi ak ñi nga xam ne ni déjà euh, ñoo amee ay euh, jàngoro yu nekk ci seen kaw defe naa Viviane la ñuy bàyyi mu béggalaatal ñu parce que tey bëgguñu wax di bëri mm-hmm. li ñu bëgg rek mooy ay live te partie boobu nag show rek la nar a doon ñu profité ci aussi fàttaliwaat leen ni guddi gi yëpp Euh, da ngeen di am possibilité am ndéwénal euh, ci euh, télévision Futur Média ci 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi dégg naa nag géwél yi sonn nañu lool <laughs> gëj ngeen a wayaan. <laughs> waa lu ma la waxoon sànq rek. Ah. ma ne ko giir bu la yéene même su la woy soo woyul sax mu teral la. waaw dafa wax wax bu rëy. Mhm. di nuyu waa kër Serigne Touba yi. Mhm. Soxna Bali Muntaxa. way nga ko way bu rëy. wallaahi Mbacke Balaye. wallaahi wallaahi way bu rëy. kooku géer la mhm. kooku day def te yàlla tax wallaay te du ngistal mhm. ak téeméer moroomam mu mhm. ngi si biir Sénégal def te yàlla tax di wax ni nag euh, euh, géwél lañu nag géwél lañu dañoo tàmm diggante yi ba vendredi samedi ak dimanche géer yi woote ñu jàkkal ak ñoom di leen bëggal ñi ñuy bëggal léegi soo xoolee pendant quatre mois ba cinq mois defoo loolu da ngay yooyu da wiit giir yi boppam dañuy wéet yow da ngay wéet yow dañuy ñaan yàlla rek mm-hmm. mais heureusement du yow kese ndax yaa ngi ak maman ci biir kër gi est-ce que di woyante ñaari woykat yu dëkk ci kër moom <laughs> di nga ak moom ci kër parce que ñaari woykat yu dëkk moom ma man xale yi sax dañ dugg ci affaire bi te dañuy woy ñoom tamit ah, ah. <laughs> mais bëgguma ñoom ñu kii ko suñu woy ni suñu woy yëpp mun nañ ko très bien euh. léegi ma jëkki jékki su rek suy yuuxu ma maa jëlal ma ne dëri man damaa sonn xaral <laughs> mais xale yi sax ñu ngi ciy ah. di di di di di seen maîtresse. Mm-hmm. Mm-hmm. maîtresse Dienaba. Mm-hmm. maison des anges. Euh, madame euh, de kooku dafa jël éducation si yi. nit ku baax la. maître Dienaba. ba pour lo kooku dafa dafa ma dafa ma tenir. yiir ma si xale yi. même xale yi suñ commencé di woy sax mu gis mu gis nii. xale yi wéet nañu. xale yi wéet nañu dañuy jékki-jékki rek day wax ne eh. xale yi bu ñu bu ñu wëy ah. Mm-hmm. xale yi bu ñu wëy. waaw ñu jàng. nañu ñu nañu jàng dëgg kon nag mention spéciale maître euh, Dieynaba Ba. Mm-hmm. maîtresse Dieynaba Ba. Mm-hmm. koo xam ne dafa tenir njabootam. c'est bien man sama njaboot njabootam la. très bien ndax ñu bokk baay. c'est vrai que loolu rek lañ leen di doyee. ñoom ñuy jàngal suñu doom yi. Mm. ay ñu jëlaat beneen téléspectateur ku dugg rek di nga am ndewinal 100000 ba 2 euh, millions 88 628 22 22 wala 04 05 wala euh, yeneen numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran alo allo allo ayca na gaaw balaa may jël xaalis bi di ko jox ki ne daala 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 nu mu gënee gaaw rek gën ma arrangé parce que tey damaa bëgg euh, maximum euh, ci ay téléspectateurs ñu jox leen seeni i ndéwénal donc ndéwénal yi 100000 commencé jëm 2 millions ak ay bag en or allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku la Pape Cheikh Diallo. waaw mën de. waaw ah, Pape Cheikh Diallo ñu ngi kontaan si jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay ñaanal yàlla dafa leen jàmm Pape Cheikh. amiin amiin amiin amiin. yàlla xam nañ la ñuy wax ne suñu xol lañ rek yal na leen yàlla fay. amiin amiin jërëjëf. na leen yàlla defal jàmm defal mboolem ji te ngeen baal ñu àq bu baax a baax a baax baal baal nañu la ngeen baal ñu. yal nañu yàlla boole baal. allahumma amiin allahumma amiin. bu fekkee déwén yi bëree bëri. allahumma amiin te leen a ñaanal. yal na leen yàlla lafal cat kese. amin waay amin ñaanal. wallaay ñaanal ñaanal. yal na leen yàlla lafal ña eh, lafal leen cat. amin amin amin yow noo tudd. man Antou Touré. alors Antou Antou Touré. <laughs> ginnaaw uh, tabaski bi metti woon na lool te de ginaaw ba ba tey yaa woote pour ñu dimbalee la xar ñoom seen. waaw. télévision Futur Média may na la ndéwénal bu toll ci ñaar fukki junni. cent waaw waaw cent mille francs Touré. jërëjëf jërëjëf. yaa ko moom Touré yaa ko moom yaa ko moom. la yàlla defal jàmm. amin amin amin amin amin. defal la ko mboolem ko pour boo coupé léegi boo boo boo boo rac boo enfin pas pas raccroché ne quitte pas. la paas léegi nii mu organiser loolu xool nan lay def ba nga jot ci sa ndéwénal dégg nga. jërëjëf ture voilà teel leen ko jël ci ginnaaw balaa muy génn feneen xam nga jamono ba wallaay yàlla nañu yàlla dimbali rek yàlla nañu yàlla dimbali rek ñuy faj su ñuy soxla ndax yëpp ay banque da koy indi ay <laughs> li borom kër yi daj ci tabaski ren bii waaye am na ci ñoo xamee dañoo mujj làmbale ak seen i xar am na ci ñu yéegoo loon baar bi ñu ah. jaay ay xaru deux cent mille ay cinq cent mille xar ya dañoo mujj lamb waaye borom kër yi itam li ñu daj ci tabaski ren bii ah, yàlla na yàlla faj aajo en tout cas yeneen saa dama jël woote woote benn géer la nuyu yooyu nag na ngeen def sant yàlla alhamdulilah ba jël namm naa la waaye waaye waaye ba jël namm naa la waaye man nam bu dul jeex la mu jékki-jékki waaye bilaay wala maa la raw wala ba jël namm naa di wax di ko ba jël Fat Samb Fat Samb madame Imam Cissé kaw la yaay seex yi nit ko baax la Cissé mbokk dem Koumba Ndiaye ba nii naa la ma jël naka def naka njaboot bi am mm, na mm. sama papa imam mi ngi si jàmm mm, wallaay sama doom mi ngi si jàmm mais nii bu dul jeex <laughs> dëgg la de banque bu bari day indi ay plusieurs nuyoo te yooyu tamit amul njëriñ mais yàlla baax na yàlla yàlla faj aajo yëpp daal loolu rek laay ñaan en ci guddi gi tey euh, ci télévision Futur Média euh, ñu euh, gërëm ñëpp sant ñëpp Viviane lan mooy nekk message pour fans yi pour soppe yi ak sénégalais yi nga xamee ni ñoo la bëgg lool bëgg may wuñ la balaa ngay dem ci seen bi di ñu mayaat beneen show boo xamee ni mën nañ ci seddal suñu xol waaw di leen wax ne rek euh, ñu ngi leen di pareel ay ay ay ay bagages yu garaaw yoo xamante ne. Mhm. Euh, saa yu ñu ko dégloo rek. baa mhm. ñu gis ko dinañ kontaan. Mhm. ndax ñun ci loolu la ñuy dox. Euh, ci ñuy bég di kontaan. di gërëmaat rek di remercier waat Sénégal. Mhm. voilà ci bëgg bi ñu bëgg. waaw ah, cofeel lay ndeysaan ah. kenn <laughs> kon ñu bàyyi la nga dem ci euh, seen bi euh, béggalaatal ñu euh, ñu mën a kontaan jibi yow tamit di nga joxe message. Ah, ni ko Viviane defee maman joxe message comme ko Viviane defee parce que sénégalais yi leen bëgg na. wallaay ndeysaan merci sénégalais ñoo leen bëgg en <laughs> fait heure bi ni ma ko waxee sànq rek daan fekk ñu yàkkamti waxuma sax nuyu du bazin mais ngénte boo tëgg sax nit ñi dañuy bëgg a ñëw fekk la ak maman chérie foofu message ngay jox ngay jox wallaay nouveau international yi yi <laughs> soo xoolee su ma sa yoo tëggee Bordeaux mu neex wallahi yoo tëggee Toulouse mu neex fii États-Unis gars yi dañuy xaar jibi ak maman chérie macha allah mhm. man du man su ma nee six mois la def Afrique six mois yëpp bitim réew laa koy def mhm. macha allah mhm. ndax musique man na ngi bu na ma fu nekk mais ne Pape Cheikh Diallo mas bi métti na trop te kat ni ñu ko sentiree niveau international loolu la ñu ko léegi doo xam fu nga fu ngay féetee mm-hmm. ni yàlla yàlla suutural amiin te yàlla may ñu gudd fan yu ganam amiin ñi ñu koy dëgg rek yàlla buñ si buñ si bokk amiin waay loolu laay ñaan amiin amiin te ñu tëdd dem mm-hmm. yàlla yàlla yërëm leen xanaa amiin waay amiin ñi tëdd itam yàlla wallaay yàlla jóg leen ba ñu delluwaat seen njaboot wallaay ndeysaan mën a dund comme nii ay tabaski ak ay fekk yu mel nii vraiment tabaski bi ren bëgguñu woon sax mu demee nii mais malheureusement nii la demee kenn mënu ci dara ñu muñ rek te gën a encore respecter mesures barrières bu kenn forcer dara voilà forcé daara daje neex na accolade neex na rassemblement neex na masque yi boo ko takkee yenn saa yi doo mun noyyi yooyu yëpp neex na mais nañu respecter mesure barrières yi rek euh, gën euh, di ci ñaaxee euh, ndax yenn saa yi nga dugg ci bërëb da am impression ni virus bi dem na te demut mu ngi fi ba tey donc nañu gën a góorgóorlu gën a respecter mesures yi maman chérie lan mooy nekk message bi pour sénégalais yi waaw kontaan ci ñoom rek di ñaan yàlla rek yàlla ñu fekkee kontaan ci invitation bi suñu fans yi normal vraiment man maman chérie xawma li may wax mhm. kontaan ci Sénégal rek mhm. waaw kontaan nañu ñun tamit kon Viviane la ñuy bàyyi mu euh, mayaat ñu ñaar ñu euh, am nuñ ci def euh, ci guddi gi tey ci télévision Futur Média déwénati leen moom la ji bi naan sambe sambe ak maman sànq ba tey ciri dundumam ndax sakulu ma ku lay ciri dundumo na fekkulu moom dayo ndax yenn saani teg la coono te lu nekk ci noof laay soo ko nanga ba mu soona la yaa ko teg sa bopp te defe ko nii ndax bakkan jàmm la bëgg dund sa dund bu leen faale yenn yi soxor la may nuroo wax ci de sax fu ma dóor yi de yëgu ma ndax sama yaramam mel ma lekk joxoo ma naan yar na ventilateur. waaw pecc mi pecc mu rëy mi ngeen pecc mi ah. macha allah fecc ma summeeku. man de lu ma def sànq mënutuma ko. ah mënutoo ko kay. aywa namm naa yi. gis ne nag baal ah. macha allah naa leen dem ngeen nag. waaye xam nga baal des fois dañ koy namm. waaw yenn saa yi sax ñu toog suñu kër yokk musique bi daal di. doon poñ daal waaw ndax dañ koy namm nag waaw. ah namm a ngi koy laaj sa sa sa daal man daal wax ji benn la namm nañ sa lépp. namm nañ sa lépp sa ay live surtout. yàlla baax na léegi rek léegi rek allah léegi dina passé incha allah defe naa bu ñu dee tàggatoo nag ak téléspectateurs yi xam naa ni bëgg leen ñu dem euh, bëgg ngeen ñu toggaat ba ci kanam mais am na yeneen yuy ñëw euh, ci euh, programme ci kanam ci télévision Futur Média ndax pare gu ñoo ko yéen lépp rek ci guddi tabaski tàggatoo bi lan lay doon maam. merci beaucoup Pape di la remercier rek. parce que bis bi. Mhm. Ah, mënul woon ñàkk. mënul ñàkk te xam waaw waaw waaw bu ma amaatoon émission suba invité la ci gannaaw suba itam même chose. ko xam naa loolu <laughs> loolu leer na. merci rek euh, mm. vraiment kontaan. Mm. Euh, kontaan tamit euh, ci jibi ak maman chérie ci jàkkaarloo bi di delluwaat di baaluwaat ak ñëpp. Mm-hmm. di baal ak ñëpp. di remercier nag Amélia. Mm-hmm. mi nga xam ne moo jaar ci maquillage bi. Mm. Awa Ndaw ci bopp bi. Thiané Diagne jour ci yére bi euh, di remercier Baxaaw mhm. ah euh, sama frère mhm. di ziar Mbacke Dioum sama frère mhm. euh, di kontaan nag di ñaan rek yàlla na jàmm yàgg Sénégal di kontaan ci sama fans yi di remercier nag bu baax TFM sama frère Ndiaga mi nga xam ne sonal euh, sonal naa ko. Ah, lépp moom la waaw boobu ba tey ñu ngi raak ba ak moom. Uh-huh. Uh-huh. donc kontaan na Ndiaga merci. Uh-huh. Euh, di ñaan nag euh, yàlla na jàmm yàgg TFM. amiin amiin voilà te yàlla jàmm sax Sénégal. amiin ci àddina bi yëpp ñun kontaan nañu lool. merci ci disponibilité bi ak euh, ni ngay àndee ak ñun à chaque fois ñu woo la nga ñëw àndandoo ak ñun man nag du ma sori euh, bu ma waxee sax euh, man mooy loolu mais daal yal na yàlla yàggal sa taxawaay. amiin yal yàlla yàggal sa taxawaay ma je suis très content et merci Djiby merci maman merci. kontaan xam naa ba beneen rek encore. incha allah waaw di sant yàlla rek. Mhm. di wax nag Viviane. macha allah show nga. Mhm. lu ma namoon baal pendant trois mois quatre mois. baal nga ko <laughs> baal naa ko. Euh, di waxaat rek euh, yal na yàlla dolli sutura. amiin euh, feebar bi dem. amiin di wax nag comme Cheikh du ma jógee fii en tant que wax ma nag ndeysaan. Mhm. ku jaar fii. Mhm. Baara Couture fi jaar. Baara Couture sax macha allah. Mm. ñu may ñawal nag bari nañu mhm. comme Rimka Couture mhm. Touba Sandaga mu ngi mhm. troisième étage wax na ma ñawal macha allah ki jaar fi ma ma chérie aussi may Achata Tall xaaral ma présenté ah waaw xaaral ma présenté ah, ah, ah, gis nga excuse moi madame Guèye Aïssata Tall Aïssata Tall moo jaar fii Euh, daal bi buur siin moo jaar fii. aw fal jom séri si meer ñoom rafet nañu lool bi rafet na. Ah. allah rek ci fang si. Mhm. billaay ñun kay dañ leen ak yàlla rek. très bien maquillage bi maman chérie sama doom bi maquillage waaw. baax doomu mag la. Dembo Dembo Dramé mooy baayam. Ah. sama turandoo papa. macha allah lañ ko dippee moo ko sama mag la. d'accord mais macha allah moom sama papa ñoo bokk benn turandoo. mais euh, papam ak sama papa ñoo bokk benn baay. Sira Dramé. voilà. Euh, euh, man doom la si man. très bien. Zira Dramé doom la si man macha allah mu nekkoon si wàllin mhm. léegi mu beral boppam nag macha allah xale bu baax mooy soo su ma ko yeewoo cinq heures du matin sax man na mu ñëw jàkkal euh, ak euh, yumpaañam kon nag di wax euh, madame Tall madame mhm. aussi mhm. franchement yéen démb ngeen ma woo image ta ku nga woo démb rek voilà rek vite fait mu defal vite fait mu ma ma chérie nga xam ne kooku ku xarañ la kon nag madame Guèye merci beaucoup mi ngi direct le moo jaar si ma ma chérie kon merci beaucoup soppe yi international national. léegi mbas bi jeex su jeexee rek. incha allah voilà même bu jeexul on fera maximum <laughs> euh, xool nu ñuy vivre avec tout en respectant euh, gestes barrières yi euh, bëggoon na maa toog ak yéen ba ci kanam mais dañuy àggale ñu nit suñu ay programme am ci yu ñu dugg ak ci yu ñu ne en attendant ñu bàyyi leen nag li des ci programme bi ci télévision Futur Média merci à tous Koulim Dioum Pape Samba Thiam defe naa lépp rek sa loxo laa koy teg bu ko defee nga jox ko équipe yi ñoom Baye Niass ñoom gloire yi ñoom Ndisaan euh, dégg naa defal nañ leen bureau ancienne gloire yu télévision Futur Média ñoom Boni. Pape du ma ko nangu de. ah sama doom la. mais ancienne gloire la ñu. non non non Dia Boni Charles Bon Mbisaan euh, Abdou Karim Boni euh, ak kan Ahmed ñooñu ay ancienne gloire lañu léegi dafa am ay yoo xamante ni vraiment ñoom Sadio maane ñoom mbay Diouf ah ñoom Djili ñoom Petit Ndoye ça c'est les Sadio Mané de la tele eh, Pape Cheikh ku lim juum. <laughs> ñu ngi leen di gërëm bu baax ku lim juum Pape uh-huh, uh-huh. Ardo Sow. Ardo Sow moo ko tuddul tey. Mm-hmm. Ah, dana doy waar de. dëgg la de na ma ñawal. Uh. day jékki-jékki de xam nga ñu géwél dañoo <laughs> dañoo doy waar. <laughs> dañuy sañ kon Ardo Sow. condamnation Sopolo. voilà merci beaucoup. <laughs> donc ancienne gloire yi itam Aziz suma ci la ci la bokk euh, li muy tuuti yëpp ancienne gloire la euh, Pape Samba sax léegi mu nekk ancienne gloire moom tamit da ci da ciy bokk euh, Mansour Gueye aussi ancienne gloire El Hadj Mao Cissé ancienne gloire. mais Sadio Mané ñoom. of vraiment merci on est très content <laughs> gërëm tamit bay Niass ci collaboration bi ma suma rakk promotion waa maquillage bu télévision Futur Média tey fifi moo ñëw li tabaski bi xat yëpp ñëw na àndandoo. ak ñun euh, gërëm tamit staff euh, bu Viviane ak euh, labelam VQ international merci déwénati leen